mu ne eh, mel na ne waxtaan wi junj nañu naka la ñuy mën a def ba mën a jëriñoo sunu koor mu ne waaye tamit du ñàkk am na yoo xamante ne yu ñu war a moytu la eh, yoon sallallahu alayhi wa moom na mu junjee moo di man lam yadaa qawla zuuri wal amali bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaaba mu nit ki ki nga xamante ne koor terewu kaa eh, wax lu bon terewu kaa jëf lu bon mu ne kooku daanaka kooru sonnal boppam lay mujj lan lay mujj def yëg ne koor tamit du ne eh, kooru biir rek bàyyi lekk bàyyi naan non nit ki dafa war a wooral ay cëram a wooral ay cëram ci façon woorin goo xamante ni saa yu demee ba koor gi paase mu gën a mën a mën a contrôler ay cëram eh, gën leen mën a saytu gën leen mën a jekku ba jaara leen fi nga xamante ne moom la yàlla gërëm akub akub yonantam kon bokku na ci liñu wara moytu mom moy manana yàq temps temps dafa lan dafa cher ci doomu adam li la ci dimbali moy sa waxtu nga fexe fessal kook lépp lo xamante ne jëriñ la lay la lay dundal la lay la lay la lay yobbe moytu jambi moytu li yonam nekkut waye tamit moytu sax lenn ci nga xamante ay mubahat mubahat moy lo loo li de lu dagan la ci man waye suma ko toppee man na ma yobbe malan ma ñak ay njëriñ yu bëré bëré bëré waaye yooyu tamit jaaj maanaa ci eh, maanaa weeru koor du weeru nelaw rek séeréer bi nag dina soxla as diir bu muy nelaw waaye daanaka def ko rek nelaw suba ba ngoon eh, wala tuddee ko weeru eh, maanaa dàq lan dàq koor wala lu lay fàttali lu ne yaa ngi ci koor gi yooyu yëpp ay façon éducation la yoo xamante ne yu ñu xawoon miin la waaye dëgg-dëgg l'islam indil nañu lu koy lan lu koy lu koy remplacer tafsir yaa ngi fi jàkk yaa ngi fi euh, alhamdulilah mbaax tamit tey gën a jege doomu aadama ci jumtuwaay yi ñu yàlla jox nga xamante ni man nga ci jotee lu bëree bëri ci xam-xam nit ki daal di organiser temps rek heure bu nekk lii laa ci lii laa ci def bañ a yàq temps incha allah du ñàkk sunu borom yàlla defal ñu ci temps bi ñam barke incha allah.